Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le Lugare TV. Alors c'est parti pour l'édition de ce euh, jeudi 20 euh, octobre 2022. Alors on démarre l'actualité avec bien sûr de la justice, le PDG de Wari. Il s'agit bien de Kabiru Il est accusé aujourd'hui de viol sur euh, trois filles et c'est en France. Euh, donc qui est sous contrôle judiciaire à Paris. Le journal Parisien rapporte sur son site que les faits présumés se seraient déroulés le 6 octobre dans l'appartement euh, de Kabir lui-même, alors situé euh, à donc la rue, ou bien l'avenue euh, Diana, c'est à Paris 16e arrondissement. D'après le Parisien toujours, le patron de Wari a catégoriquement lui nié les faits qui lui sont reprochés. Il affirme être plutôt la victime d'une tentative d'extorsion de fonds. Alors d'après toujours la mise en cause, c'est au contraire les jeunes filles euh, qui se serait jeté sur lui et donc bien sûr d'avancer l'hypothèse euh, d'escorte gueule comme il l'appelle qui serait mise d'accord pour inventer euh, ces cas de viol et en tirer profit bien sûr avec un avantage financier sur donc Kabir affaire à suivre également dans nos prochaines éditions le militant de PASTEF, lui, Ndongo Job, il est placé euh, sous mandat de dépôt euh, ce mercredi après plusieurs retours de parquet. Euh, bien sûr, le jeune militant est poursuivi pour appel à insurrection, menace, discours de haine contre les autorités judiciaires. Ndongo Job a été placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet et il est actuellement à Rebos au moment où l'on vous parle, donc sous euh, contrôle judiciaire. Et puis, dans le cadre d'un contrat de stage au, donc, euh, au service ORL de l'hôpital Fan de Dakar, cette jeune étudiante, elle s'est dit confrontée à quelques soucis liés à son habillement, plus précisément à son voile islamique. Alors, la jeune fille que vous voyez sur ces images euh, dit avoir reçu l'instruction de son major d'enlever le voile pour ne mettre que la coiffe avec un collant, donc, euh, aux vêtements, un remplacement du voile un ordre que la jeune fille ne compte pas exécuter. Elle euh, lance un appel aux autorités euh, pour une justice ici au Sénégal. Alors nous allons suivre ensemble euh, son récit, et le récit de cette étudiante dans le Salam alaikum wa rahmatullah. partager histoire ne alluded Suwa bi mo moy fani dan ma ororientewan made defi sa ma, ci opital fan, we bi o mo we opto bu bil, bi ma demen ybu ma servi binye yo ORL, bi ma deme ci servis bi, Koma se na li ge fani o mo problemm akkel ba ben ju ñu dadi mai yni ci biro major bi, Bi mame ci biro ma dadi fudadadi dugu, Bi ma duge muadi mai gis bi magisemunema suma ynyewa ci servis bi. naa dindi sama muuraay su ma dindee sama kol ma teg coiffe bi rek ma xamal ko ne ko carrément loolu mënuma koo def mënuma dindi sama kol teg coiffe rek ndax su ma dindee sama kol teg coiffe rek sama yaram bi day nekk si biti sama baat bi day nekk si biti te man damay muuru mu daal di may ne bu fekkee loolu la nga jënd collant sol ko boo solee collant yaram bi du feeñ bu ko defee nga daal di teg coiffe bi mais moom daal nee na naay dindi kol gi teg coiffe bi rek ma ne ko loolu tamit mënuma koo def ndax su ma solee coiffe bi rek même su solee collant tamit dina am partie yu nekk sama yaram yu nekk ci biti mu daal dina ma baax na ma daal di génn foofu dem continuer sama liggéey bi ma demee di continuer sama liggéey moom jug na di war service bi ñëw na ba fekk ba gis ma fi ma nekkoon di liggéey mu daal dina may na noo tudd ma wax ko sama tur maanaam euh, ban année nga nekk ma wax ko ban année laa nekk ci formation bi après mu daal di dellu bi ñu wàccee ma daal di dem fëgg bureau daal di ne ko yow yaa ma waxoon naa ñëw naa ñëw ci yow bi ma ñëwee mu ne ma c'est inutile maanaam sama ñëw bi amul njëriñ ma ne ko baax na ma daal di ñibbi bi ma xëy bi ma ñëwee ci lënd bi ma ñëw xëy si moom fekkuma ko fa moom major bi ki ma fa fekk mooy ki topp ci major bi ma dem sol sama tenue correct muuru sama muuraay sol sama coiffe ma ñëw ba commencé di liggéey kooku mu ne ma bu fekkee li la major bi wax nanguwuma koo accepté maanaam major bi li ma proposé bu fekkee mënuma ko accepté damay jóge foofu ma nekkoon dañ may yóbbu feneen lii la ma wax mu ne ma ndax muuraay bi méngoowul ak ak hospitalisation boobu ma nekkoon man nag xaw ma woon ne Sénégal am nga fooy dugg foo xam ne amoo droit yóbbaale sa muuraay ñu lay exiger ngay teg coiffe kese loolu mooy premièrement deuxièmement mënumaa comprendre nga fay sa xaalis dem defi stage yaay fay sa xaalis dem defi stage nga dem ñu lay raconter ay histoire am nga droit muuru fii amoo droit muuru fële. may laajte yéen sénégalais bu fekkee yéen da ngeen a xam benn loi boo xamante ne nii dafay wax ne am nga droit muuru fii wala am nga droit muuru fële ci pays boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman À présent, nous parlons de la hausse du prix euh, du poulet sur le marché sénégalais. notre reporter Yama Faye, elle a fait le marché ce matin euh, pour nous. Alors, elle a rencontré quelques vendeurs euh, d'aliments qui évoquent bien sûr l'augmentation du prix de l'aliment qui serait la cause de cette augmentation du prix du poulet. Alors, nous allons suivre justement quelques réactions de ces vendeurs et clients rencontrés par Yama Faye. dafa seer torop na man dama ko daan jaay moom waaye na koor laay ëpp lu ma koy jaay waaye fi mu ne nii moom dafa seer moo tax jaayu ma ko. bu njëkk dama daan jënd 2000 2500 waaye léegi dafa seer ay 3500 mille ginaar bu baax 5000 lay jar si génn moo tax ma bàyyi ko brochette rek laay jaay léegi nag ginaar dafa seer. waaw waaw waaw ginaar yi moom boo gisee ñu seer fi mu toll nii. daanaka aliment bi léegi moo yokk ndax aliment bi quatorze mille la doon jart léegi mu ngi jar vingt vingt mille vingt et un mille yi tamit ñu ngi doon jar carton bi bu seeree ba seer vingt cinq mille léegi mu ngi ci trente mille wala ay trente cinq mille waaw loolu nag day bokk ci lu seeral ginaar yeeg yooyu ginaar mun nga kaa jaaye deux mille cinq cent trois mille mais léegi ginaar moom bu ndawee ba ndaw trois mille la jëm kaw trois mille jëm kaw fu mu toll nii da fu mu ne bo jaaye 3000 sa danaka do am dara 3500 4000 yoy dal ngay mëna jaaye non day non manke na ndax nuñ ko doon amé doto ko ko amé ndax ñi la ko ñu doon duggal ginar fi mu toll ni mënatu ñoo duggal ndax da cher aliment bi cher na xaj bi bay nañ léegi fi mu ni ginar foofu mu manqué ndax yar kat yi buñ wañé ko rek day manqué mo bu njëkk aliment da doon jar 15000 léegi dem na ba ci 20000 carton poussin bu doon vingt cinq mille gars yaa ngi koy jëndee léegi vingt sept mille cinq cent vingt huit mille garab yi tamit yokk ba ci kopp bi sax daa yokk moo waral yokk ci ginaar bu njëkk ginaar dañ ko doon jëndee deux mille cent franc wala deux mille di ko mais léegi dañ koy jëndee deux mille sept cent wala deux mille huit euh, toujours dans l'actualité sur le Lougaré TV dans le cadre de la lutte contre les inondations dans la banlieue de Dakar le ministre du développement euh, communautaire et de la solidarité de l'équité, euh, Samba Djobenka. et le maire de la commune de Yeumbeul Nord ils ont effectué une visite de chantier c'était ce mercredi. Euh, pour euh, s'inquiéter de l'état d'avancement de la construction de ces bassins euh, donc des versants amers. C'est à Yumbel, comme vous voyez donc sur ces images. Le ministre était en déplacement dans cette partie de la banlieue dans le cadre de la lutte contre les inondations. Justement, nous allons écouter tour à tour les réactions du ministre Samba Benka ainsi que du maire de Yumbel Nord. Nous suivons les réactions de Sud avec Lugare TV. Euh, le ministre mu ñëw seet si ñu ci ndigalu euh, njiitu réew mi ñëw ànd ak autorité administrative yi nga xam ne ñoom la war a euh, àndal ci liggéey bi le gouverneur jusqu'au sous-préfet que nous saluons monsieur le sous-préfet Khadim Gueye qui qui qui est vraiment nekk collaborateur bu baax le le le sous-préfet Khadim donc ñu nuyu ministre bi ak l'ensemble collaborateur yu ma àndal yëpp ki ñëw tey fii ci Yeumbeul Nord pour sét si ñu. seet si liggéey bii nga xam ne dañ ko tàmbali mooy liggéeyu defar euh, bassin yi nekk fii ci ci commune Yeumbeul Nord effectivement bi mu ñëwee nag man en tant que maire dalal naa ko ak collaborateurs yu yëpp dalal naa ko en tant que maire ànd ak adjoint au maire yi fi nekk ak conseillers municipaux yi fi nekk ànd ak waa dëkk bi chef de village ak waa dëkk bi yëpp yëmbal ñaari yëmbal la mais benn yëmbal la ak kilifa yi fi nekk yëpp dalal nañu ko ànd ak moom ñoo visite bi ci liggéey bi nga xam ne moom la ñoo seet liggéey bi ne dañ ko tàmbali muy liggéey boo xam ne dafa jëm ci wàllu bassin yi nga xam ne moom mooy euh, jàllale ndox mi ba ndox mi nga xam ne moom la population yi di am jafe-jafe jéeg léeg-léeg bu dalee ñu mën ko daj di ko di ko dajal di ko topp ay barab ay barab di ko toppalante ba ndox mi egg géej loolu nag moom mooy ouvrage yi ñuy def kon fii tey ci yëmbal Nord dafa ñëw pour xool si liggéey tàmbali liggéeyu bassin bu ñu tuddee technicien ñoo ko tuddee bassin 55 beneen côté bu ñu na bassin 54 ci biir Yeumbeul Nord am na bassin yu dem ba Yeumbeul Sud

Euh, tali yoo xam dañ ci def assainissement dañ ci def ay lampes dañ ci def aussi euh lepp lo ne day tax mu nek tali yu mucc ayib parce que xamnañ ni tay fiñu fi ñu toll communes yi bëgg nañu nam def yenn réalisation yi waye nak seeni ressources mayu len ñu mën def yenn réalisation yi de ngeen leg monsieur le maire euh de Yëmbal Nord mu ne ren ci seen i biir yi seen biiru budget bokku na ci lo xam dañ ko prévoir luy tolloog deux millions jël ko nar ko jënd engin pour accompagner yenn initiative yi loolu nag pour wax leen lu suñ ko mënee état ci boppam à travers la PACASEN moo leen jox ay ressources supplémentaires lu muy wone foofu moom mooy que ne lépp luy mairie di exécuter tey soo ci génnee les grandes villes la plupart du temps 80% pour 60 pour cent li ci am état bi moo leen di accompagner une façon de dire encore une fois de plus moo tax ñu dem Bambilor pour nar fa réaliser 3,3 virgule kilomètres de voirie yu bees ba pare ñu assainir ko mu am électricité ak lu mu mën a doon Et là, on en arrive à l'actualité hors de chez nous avec la démission de la première ministre britannique Liz Truss. Euh, elle a fini par démissionner ce jeudi 20 octobre. Elle devient ainsi l'une des premières ministres euh, les plus impopulaires de la Grande-Bretagne. Liz Truss avait été fragilisée par l'échec de son plan économique en Grande-Bretagne. Elle avait vu la démission du ministre en charge des Finances euh, a confirmé son limogeage. C'était vendredi dernier. Puis la ministre de l'Intérieur euh, voilà, et Liz euh, avait remplacé euh, Boris Johnson à la suite de son élection comme chef du Parti conservateur et euh, il a, elle démissionne euh, tout juste après avoir passé six semaines à la fonction euh, de la première ministre de Grande-Bretagne. Elle a on termine l'actualité avec du sport, bien sûr, lutte avec frappe, prévue à l'arène nationale le 6 novembre prochain. Le combat Papa papasso on en parle dans cette édition, aura lieu dans un peu plus de deux semaines seulement, après un premier face à -face, il y a quelques mois bien même quelques semaines à est le lutteur des Parcés Asseni. Il s'agit bien de Papa euh, il a fait hier son euh, open press. Alors, au menu, quelques activités physiques. Vous allez sur, avec bien sûr euh, le détenteur du trophée de l'arène nationale. Il s'agit bien de Modelo. Alors, le roi des arènes que nous allons suivre justement avec Papa C'était un entraînement. C'était au Parcés Asseni. Suivons ensemble. waaw ah, mais xam nga ñun ay sportif la am loo xam ne wax sax bëree sax dootul neex jëf jëf jëf bee man bu ma xool xam ne pare naa pour joxe sama bakkan ci le jour ji. pare nga pour joxe sa bakkan. pare naa pour joxe sama bakkan ci le jour ji. c'est des complexes ñun bu ñu def bu ñu delloo ginnaaw tuuti ñu fàttaliku 2002 Sénégal bu ñu joué France ñetti Sénégalais fa nekkoon te France da leen gagné. sportif bu bu pare dëgg dëgg dëgg biir jàmm gën estatu mbaaw bu ñu bëggee ñu fa làmb jëm. bés boobu duma ko daan ko maa ko mën fuuf. nga duma ko. voilà mesdames et messieurs c'en est pour la l'actualité sur le Gare TV merci à vous tous de nous avoir suivis la version wolof c'est tout de suite.

bu Wari euh, ñu ñu xamal ne yëf yi nag ma ngi xewoon juróom benn fan ci weeru octobre bile euh, ci appartement ba nga xam ne sax moom moo ko moom nekkee ca Paris 16e arrondissement ba tey bu ñu sukkandikoo ci le Parisien ñoom nag li nga xamal ni moom nag euh, njiital Wari bile dafa rek weddi tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci ndodam moom sax nee na moom mooy victime bi gannaaw ba mu gisee na jigéen ñooñee di ko tuumaal ñoom ñoo koy topp ngir rek ñoom it bëgg ay koppar ci moom moom mi nga xam ni tey ji euh, siw na lool euh, ci wàllu wi wante rek euh, nañ bàyyi yoon def liggéeyam te xam ni moom set ne wecci tu tuuma yi nga xam ni moom la ñuy teg ci kaw boppam keneen euh, ka nekk ak loxo yoon di njiital Pastef bile di Ndongo Diop moom nag dem ba tey dañ ko placé sous euh, rek euh, mandat de dépôt la ko waral moo di ne dañu gis ne dafa yëkkati ay ay kàddu yi muy jëmale ci askan wi te loolee mën naa jur fitna nañ ko tuddee appel à insurrection menace wala sax li ay discours de haine mu jëmale ko nag ci ay autorités judiciaires loolee tax rek ba démb ñu mujjee ko teg loxo moom Ndongo Diop bokk ci ci waa Pastef di jeune militant euh, bu Ousmane Sonko euh, ci noonu ñu xamal itam euh, ki ko placé sous mandat de dépôt moo di juge premier cabinet bu Ndakaaru mu moo def lu ni mel tey jii sax ñuy wax ak ci jamono jile ma nga ca douane bu Rebeuss ngir rek ñu war ko mën ak atte moom itam ci lañ koy toppee. ak keneen ka nga xam ne bëgg na euh, yoon euh, ñëw ci lii muy dund euh, di rek ab jeune étudiante foofee ca hôpital bu Fann moom nag nee na ab contrat de stage la am ci service ORL bu hopital Fann ci noonu la ñuy xamal ne nee na rek bëgg naa def liggéeyam wante tey jii dañ koy rek wax na dindi kol ga mu muuroo ngir nag mu mun a dugg ci l'hôpital ba moom nag ndaw si gis na ni lu ñu mel teguñu ko ci yoon gannaaw ba ñuy nekkee ci réew bu Sénégal ku na ni dëkk bi yona fi dox lolé nak jaxal ko lol ba rek tay ji mu génn momit di wote walu di wax ne major am mom mo joxe instruction wala sax moko wax ni kol gi du duggu ci bir l'hôpital ba rawatina ci service ORL bu hôpital fan lolé nak jaxal ko lol eulem ko ba tax tay ji rek mu génn di yuuxu di wote walu di laaj ndax rew mi yon amna fem déet mom soxna sox ngeen gis ci image mi ngok nañ ko tewlu amna ay kàddu yu mbëkkat salaamaaleykum wa rahmatullah tey nag dama ñëwoon ngir partager ak yéen benn histoire boo xam ne dudd naa ko fan yi ñu nekk histoire bi moom mooy fan yi dañ ma orienté woon pour ma dem defi sama stage ci hôpital fan weer bi weeru octobre bii la bi ma demee ñu yóbbu ma service bi ñuy wax ORL bi ma demee ci service bi commencé naa liggéey fan yooyu amu problème ak kenn ba benn jour ñu daal di may yónni ci bureau major bi bi ma demee ci bureau ma daal di fëgg daal di dugg bi ma duggee mu daal di may gis bi ma gisee mu ne ma su may ñëwati ci ci service bi naa dindi sama muuraay su ma dindee sama kol ma teg coiffe bi rek ma xamal ko ne ko carrément loolu mënuma koo def mënuma dindi sama kol teg coiffe rek ndax su ma dindee sama kol teg coiffe rek sama yaram bi day nekk si biti sama baat bi day nekk si biti te man damay muur mu dal di may ne bu fekkee loolu la nga jënd collant sol ko boo solee collant sa yaram bi du feeñ bu ko defee nga daal di teg coiffe bi mais moom daal nee na naay dindi col gi teg coiffe bi rek ma ne ko loolu tamit mënuma koo def ndax su ma solee coiffe bi rek même su solee collant tamit dina am partie yu nekk sama yaram yu nekk ci biti mu daal di ma baax na ma daal di génn foofu dem continuer sama liggéey bi ma demee di continuer sama liggéey moom jug na di wër service bi ñëw na ba fekk ba gis ma fi ma nekkoon di liggéey mu daal di may na noo tudd ma wax ko sama tur maanaam euh, ban année nga nekk moo ko ban année laa nekk ci formation bi après mu daal di dellu bi ñu wàccee ma daal di dem fëgg biroom daal di ne ko yow yaa ma waxoon naa ñëw naa ñëw ci yow bi ma ñëwee mu ne ma c'est inutile maanaam sama ñëw bi amul njëriñ ma ne ko baax na ma daal di ñibbi bi ma xëy bi ma ñëwee ci lënd bi ma ñëw xëy si moom fekkuma ko fa moom major bi ki ma fa fekk mooy ki topp ci major bi ma dem soo sama tenue correct muuru sama muuraay sol sama coiffe ma ñëw ba commencé di liggéey kooku mu ne ma bu fekkee li la major bi wax ma ko accepté maanaam major bi li ma proposé bu fekkee mënuma ko accepté damay jóge foofu ma nekkoon dañ may yóbbu feneen lii la ma wax mu ne ma ndax muuraay bi méngoowul ak ak hospitalisation boobu ma nekkoon man nag xaw ma woon ne Sénégal am nga fooy dugg foo xam ne amoo droit yóbbaale sa muuraay ñu lay exiger ngay teg coiffe kese loolu mooy premièrement deuxièmement mënumaa comprendre nga fay sa xaalis dem defi stage yaay fay sa xaalis dem defi stage nga dem ñu lay raconter ay histoire am nga droit muuru fi amoo droit muuru fële. may laajte yéen sénégalais bu fekkee yéen da ngeen a xam benn loi boo xamante ne nii dafay wax ni am nga droit muuru fii wala am nga droit muuru fële ci pays boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulmans. boo leen ko xamee ngeen daal di may wax. gannaaw si loolu la ñu wax lu jëm ci euh, njëgu yokku gi ci wàllu ganaar gi ñu gis na nag ci marché bi ganaar gën naa yokku euh, suñu ndaw lii dox na yaa ma fay demoon na euh, defi marché ngir rek xam leen ak certe googu li ko waral gannaaw ba mu gisee ñi jaay aliment ñoom la ñu gis moo di njëgu aliment bi dafa yokk loolee tax ba tey ji njëgu ganaar gi yokk am na nag ay kàddu ñuy yëkkati dénk ko moom soxna yaa ma fay am na itam ñiy jëfandikoo ganaar googu la ñuy yëkkati dénk convaincre ko nañ ko teew teewlu seeni réaction xanaa seer rek dafa seer torop na man dama ko daan jaay moom waaye nag koor laay ëpp lu ma koy jaay waaye fi mu ne nii moom dafa seer moo tax jaayu ma ko bu njëkk dama daan jënd 2000 2500 waaye léegi dafa seer ay 3500 mille ginaar bu baax 5000 lay jar si génn moo tax ma bàyyi ko brochette rek laay jaay léegi nag ginaar dafa seer waaw waaw waaw ginaar yi moom boo gisee ñu seer mu toll nii daanaka aliment bi léegi moo yokk ndax aliment bi quatorze mille la doon jart léegi mu ngi jar vingt vingt mille vingt et un mille yi tamit ñu ngi doon jar carton bi bu seeree ba seer vingt cinq mille léegi mu ngi ci trente mille wala ay trente cinq mille waaw loolu nag day bokk ci lu seeral ginaar yeeg yooyu ginaar mun nga kaa jaaye deux mille cinq cent trois mille mais léegi ginaar moom bu ndawee ba ndaw trois mille la jëm kaw trois mille jëm kaw fu mu toll nii da fu mu ne bo jaayee 3000 sax daanaka do am dara 3500 4000 yoy dal ngay mën a non day non manqué na ndax nuñ ko doon amé doto ko ko amé ndax ñi la ko ñu doon dugal ginaar fi mu toll nii ñoo duggal ndax da cher aliment bi cher na xaj bi bay nañ léegi fi mu ni ginar ginaar mu manqué ndax yar kat yi buñ wañé ko rek day manqué. mo bu njëkk aliment da doon jar 15000 léegi dem na ba ci 20000. carton poussin bu doon jar vingt cinq mille gars yaa ngi koy jëndee léegi vingt sept mille cinq cent vingt huit mille garab yi tamit yokk ba ci kopp bi sax daa yokk moo waral yokk ci ginaar bu njëkk ginaar dañ ko doon jëndee deux mille franc wala deux mille di ko jaayee deux mille cinq cent mais léegi dañ koy jëndee deux mille sept cent wala deux mille huit cent di ko jaayee trois mille. ak gannaaw si loolu ñu wax ci mbënd mi ca banlieue bu ndakaaru ca euh, rek euh, yëmbal plus précisément euh, jëwriñ jilee di Samba Ndiobène Ka ñu dénk ko wàllu développement communautaire équité ak solidarité nationale demoon na nag yi lu jam ci chantier yi nga xam ne door nañu ko fa ngir tabax fa ay bassin yi nga xam ne dafa war a nag tàbbi biir géej ngir ñu mën a euh, rek euh, jàppale askanu yëmbal ñu mën a mucc ci ndox ma nga xam ni euh, ci nawet gi daf leen a sonal lool moom Samba Ndiobène Ka demoon na seeti meer bu yëmbal noor ngir nag ñoom ñaar ñu mën a visiter chantier ya ñu fa fekk mi ko dañuy dem teewlu seen réaction ñoom ñaar ñëpp kilifa yi ci micro Lougaré ci ndigalu njiitu réew mi ñëw ànd ak autorité administrative yi nga xam ne ñoom la war a euh, àndal ci liggéey bi euh, le gouverneur jusqu'au sous-préfet que nous saluons monsieur le sous-préfet Khadim Gueye qui qui qui est vraiment nekk collaborateur bu baax euh, le le le sous-préfet Khadim donc ñu nuyu ministre bi ak l'ensemble collaborateur yu ma àndal yëpp ki ñëw tey fii ci Yeumbeul Nord pour seet si ñu seet si liggéey bii nga xam ne dañ ko tàmbali. mooy liggéeyu defar euh, bassin yi nekk fii ci ci commune Yeumbeul Nord effectivement bi mu ñëwee nag man en tant que dalal naa ko ak collaborateur yu yëpp dalal naa en tant que maire ànd ak adjoint au maire yi fi nekk ak conseillers municipaux yi fi nekk ànd ak waa dëkk bi chef de village ak waa dëkk bi yëpp yëmbal ñaari yëmbal la mais benn yëmbal la ak kilifa yi fi nekk yëpp dalal nañu ko ànd ak moom ñoo visite bi ci liggéey bi nga xam ne moom la ñoo seet liggéey bi nag dañ ko tàmbali muy liggéey boo xam ne dafa jëm ci wàllu bassin yi nga xam ne moom mooy euh, jàllale ndox mi ba ndox mi nga xam ne moom la population yi di am jafe-jafe jéeg léeg-léeg bu dalee ñu mën ko daj di ko di ko dajal di ko topp ay barab ay barab di ko toppalante ba ndox mi egg géej loolu nag moom mooy ouvrage yi ñuy def kon fii tey ci yëmbal nord dafa ñëw pour xool si liggéey tàmbali liggéeyu bassin bu ñu tuddee technicien ñoo ko tuddee bassin 55 beneen côté bu ñu jéggee tali bi am na bassin 54 ci biir yëmbal nord am na yenn bassin ba yëmbal sud bassin yooyu la ñuy lëkkale di ko lëkkale di ko lëkkale bu ñu egsee fii muy mujjee ñu koy lëkkale moom la ñuy wax medina Gazon mooy dex gi su ngeen suñu ginnaaw. suuf tey bi am nañu ñaari lancement yu am solo lancement bi ci jiitu mu ngi nekk euh, Mbambilor commune de Mbambilor fi nga xam ne tey lancé nañ foofu euh, pour réaliser foofu luy tolloog ñetti kilomètres ak 300 mètres ci biir commune bi ñetti kilomètres yi nag ñetti kilomètres tali la ci biir commune boobu. Euh, tali yoo xam ne dañ ciy def assainissement dañ ciy def ay lampes dañ ciy def aussi euh, lépp loo xam ne day tax mu nekk tali yu mucc ayib parce que xam nañ ni tey fi ñu toll communes yi bëgg nañu naam def yenn réalisation yi waaye nag seeni ressources mayu leen ñu mën def yenn réalisation yi dégg ngeen léegi monsieur le maire euh, de Yeumbeul Nord mu ne ren ci seen i biir yi seen biiru budget bokk na ci loo xam ne dañ ko prévoir luy tolloog 200 millions jël ko nar ko jënd engin pour accompagner yenn initiative yi loolu nag pour wax leen lu suñ ko mënee état ci boppam à travers la PACASEN moo leen jox ay ressources supplémentaires lu muy wone foofu moom mooy que ne lépp luy mairie di exécuter tey soo ci génnee les grandes villes la plupart du temps 80 pour 60 pour cent li ci am état bi moo leen di accompagner une façon de dire encore une fois de plus moo tax ñu dem Bambilor pour nar fa réaliser 3,3 virgule kilomètres de voirie yu bees

benn weer kott la def euh, ci parti euh, wala sax ci poste bu premier ministre boobee ci diwaan bu Grande-Bretagne laata muy tekki ndombal tànkam foofu le ci noonu dañ jeexalee xibaar yi ak wàllu tàggat yaram sport ñu jëm ci wàllu làmb gi lutte avec frappe ñu gis ni euh, combat Siteu Papa Sow ñu ngi ko jàpp juróom-benn fan ci weeru novembre bi ñu jëm moom nag Papa Sow démb ma nga doon defal ma nga doon amal open press am foofee ca Parcelles Assainies yi euh, ñu gis ne euh, gannaaw rek ba ñu amee seen face à face gu njëkk ca waagu ñaar ay bés yi ci noonu ñoom mbër yi nag dafa mel ni noppi nañu ngir mën a jàkkaarloo Papa moom démb lañ ko doon rek eh, def eh, open press am bu njëkk ñu gis na sax ci entraînement ya doon amal fekk nañ fa Modou Lo eh, moom mi yore lii di couronne bi di rek voilà mi ngi comme ni nga ko gisee ci image yi am na nag ay kaddu yu mu yëkkati jëmale ko ci natangoom bii di Siteu moom Papa Sow ñu teewlu ko foofee ci doon bu Parcelles Assainies. ah mais xam ay sportif lañ xam ne wax bi sax bëree sax dootul neex jëf jëf bee dàq. man ku ma xool xam ne ne pare naa pour joxe sama bakkan ci le jour ji. pare nga pour joxe sa bakkan. pare naa pour joxe sama bakkan ci le jour ji. su dee complexe ñun bu ñu de bu ñu delloo ginnaaw tuuti ñu fàttali ko 2002 Sénégal ñu joué France ñetti Sénégalais fa nekkoon te France da leen gagné. sportif bu bu pare dëgg dëgg dëgg biir jàmm gën stade Mbao bu ñu bëggee ñu fa làmb jëm. bés boobu du ma ko daan ko maa ko mën fuuf. mi ngi ko mbokk yi xarit yi li bokk la ci li fa ngeen fës ci xibaar fii ci Lougaré TV di lañ jaajëfal bu baax ci teewlu bi di lañ jox dig daje suba incha allah